dali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen ñu xëyandoo yéen i kaay gii di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di jaar ci ndox mi di dem ca bitim réew te di ñàkk seen ba bakkan jamono ji lim bi daan nay bëri lool Assane Samba xëy jël xalimama nee na xaru goo xamante ni fii ci Sénégal dañu ko ñàkkal solo te ñi nga xam ne ñoo ciy faatu maanaam bëri nañu lool yéen i kaay gi nee na ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre bi nga xam ne moom la ñu génn am na benn convoi boo xam ne doon nañu jéem a dem ca bitim réew toll nañ ci ñeen fukki nit fanweer ak ñett yëpp ay sénégalais lañu liggéey amuñu benn information si ñoom maanaam xamuñu yegg nañu xamuñu dañoo réer ci biir ndox mi yéene kaay gi nee na ci déndu Afrique bi ñu ko xoolee maanaam ay doomu réewum Sénégal ñoo ëpp lu ñuy jël gaal gi di jaar ci ndox mi di jéem a dem ca bitim réew Assane Samb xëy di ñu xibaar naan ñu moo ne day ñi nekk ci réew mi dañoo jàpp ne ngir ñu tekki il faut ñu dem bitim réew te mbir mi demeewul noonu bëri na ñoo xam ne ñoo ngi bitim réew du ñu réussir ay jafe-jafe yi neen lañ fay dund yéene kaay gi di source wax ci lu jëm ci wàllum élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéene kaay gi nee na li nga xam ne nag mooy déposé jëm ci wàllum liste yi ba léegi ni amul kenn koo xamante ni def na ko embouteillage bu mag a mag a mag danañu ko daal di ci fi nga xam ne fa la déposé liste yi tey jii yéen a gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum dépôt des listes ci élection locale yi maanaam dernier virage bi maanaam egg nañu sa ci pàndaw ga wërngal ba ba yéen a kaay gi di vox populi élection locale yi daan nay wax na ci diwaanu Ndakaaru maanaam xeex bi munta ñàkk a Abdoulaye Diouf Sarr avenir politique am jamono ji moo nekk enjeu yéen kaay gi di Sud Quotidien ak réew mi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu yeewi askan wi ci diwaaru Ndakaaru Barthélémy Dias la ñu samp yéen gi nee na wàllu Sénégal Doudou Wade la teg ci Ndakaaru Soham Wardini moom nag dañu ko écarté waaye nag ma ngi berli su boppam L'Observateur nee na Soham Wardini ba léegi ma ngi xëccoo mairie bu Ndakaaru ngir nag défendre li nga xam ne mooy bilan yéen kaay Benno Bokk Yaakaar tànn ndaw ñi ñoom bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi nee nañu Moussa Sy amul bilan te nag danañu boycotté li nga xam ne mooy liste Benno Bokk Yaakaar bi maanaam dañuy def vote sanction yéen kay gi du source xëy xibaar naan ñu passé fa Ousmane bare bare bari ci biir yeewu askan ay commune ak i département waa Pastef ñoo ko jël yéen kay gi nee na loolu nekk maanaam mooy séddale gaynde dëggantaan yéen la témoin na Khalifa Ababacar Sall maanaam ba pare di neexal ki nga xam ne mooy Soham Wardini yéen ak Ousmane Sonko maanaam commune yu baax yépp ak département yi ñoom ñaar ñoo ko séddoo maanaam yeewi askan wi commune yi yépp daal mën na ñoo wax ne Khalifa Sall ak Ousmane Sonko ñoo ko séddoo ci seen biir a di bàyyi nag ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir yeewi askan wi yéen kaay gi di évidence xëy dañu xibaar naan ñu ca diwaanu Kaolack bëri na ñoo xam ne ànduñu ci Modou Ndiaye Rahma mi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar def tedd liste ñenn ñi nag nee nañu bëgguñu ko ndax ab sàcc la yéen kaay gi di xëy dañu xibaar naan ñu cortège Ousmane Sonko bi ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ni ki jébbal nañu leen seen borom waaye nag ñi nga xam ne ñuy waa Pastef démb nag am nañu lu leen naqari loola Walf Fadjri kaay xëy dañu xibaar nañu nag vaccin yi nga xamante andi nañ ko ci réewum ngir nag askan wi ñàkkoo ko am na xam ne dañoo lànk kandaare bañ a jël ñàkk yi moo taxi nag lu jege téeméeri junni ci ay ñàkk yoo xam ne dafa périmé dat ba daa jeex dañu koy jël sànni ko sa mbalit ma enquête yéen kaay nee na loolee moo tax nag bees ci ndakaaru ñaari ponkal yoo xam ne ay góor la ñu simeeku ba seet wecce maanaam doon sëy si seen biir yéene kaay gi di estat wax ci ligue des champions Cristiano Ronaldo nag ni ki démb moo sauvé ñi nga xam ne ñooy waa Manchester United yéene kaay gi nee na Liverpool moom ak Ajax ñoo nga jëm ca qualification ya yéene kaay gi nee na Bayern ak Juve ñoom dem nañ ca de finale ya yéene kaay gi di na combat bi nga xam ne moo war a dox diggante Siteu ak Papa Sow ndax Siteu danger